Ninguém. tá Um ano. Pois é, mais é. é. que conseguiu. Bali, Olha, bosan gini di rom. Ah, mo rom. Akila. Wa, mo ki moy ki ma tumal. Nada. Nyonge. Wanyonge. That's fine. This Um, so apa yi filmnya kani? nekk nii parce que waa ji fi gara nekk mu ngi dégg rek taxaw rek moo xaalis bi fa war a génn xam nga te ñun liggéey moo faral ki wala dañoo faral liggéey bi loi bi li mu ñu joxe loolu la ñu tëral léegi fim mu nekk nii mu ne moom koot rek koot waaw koot parce que mu ne xaalis bi dafa bëri te mënu koo bàyyi jéem nañoo naxante moom desoon na waaye daal mu ne noo rek xaalis bi dafa bëri soo man nag try naa ma level best soo code bi friday la ajuma bii ñëw bii ñëw nii ci suba hmm. dégg nga waaye bu leen ko jàppee dara nag try leen rek ngeen teel a ñëw dégg ngeen lu ci mun di nekk rek dina setul ban time yaa anyway try rek nine o'clock fekk fa dégg ban court house bi. Ah. waaw soo man tam dinaa try ma àgga fa bu leen fee na a leen ah. waaw ah. ah, na baax na na. gars yi seen problème. caa si la xale bu bi kii jël Moussa lu xew. ah. suma waay. dañ ko jàppal. dañ ko jàppal lan. ko tëj. tëj. ñu ko jëlee liggéey. waaw moo ko tëj. loolu kañ la. ñu xam ne dafa secca. waaw loolu kañ barki démb. léegi nag anam mu police mu police. waaw waaye mun naa dem appel ko. waaw dama ko ne naa awee fii waxtaan. waaw lu xew wax nga dëgg waaw baax léegi soo demee ñu toogal yaa ci dara loolu moom noppil jàmbaar bu mu doon dara dinaa ko dindi ba mu set bëj gis nga ko tuumal noonu dina këpp ci moom ku ko tuumal ca moom lay këpp bu soobee yàlla nañ ko bàyyi dama nga toog sa kër ga baax na dama nga toog atte bi toxal nañ ko ba ci ñetteelu weer bi ñëw nii su amee ñaar fukki fan ak ñaar ci weer ci at bi ñu nekk nii luwaa diggante Lamine ak Daouda laaj na lamin waat. Serigne li ma wax fii. dëgg rek lay doon dëgg rek yàlla dimbale ma. Lamine Cissé. si bési ñaar fukki fan ak ñeneen. ci weer bi ñu nekk nii ci at bi yaa ngi ci kanami loi bi ñu tuumal la ne da nga sàcc xaalis bi soo toll ci téeméer ak ñaar fukki junne dalasi tuuma bi ànd nga ci am lii lu dëgg ànd nga si atte bi nañ ko toxal ba ci ñaareelu weer bi ñëw nii amee ñaar fukki fan ak قلبي لك انا am dem tamit yombi noonu waaye dinaa ko jot daan fu mu ne naa waxam moom waaw kato ok waaw am tamit mbir bi mu ne yombi du yombi noonu tamit xam nga fi mu jaar mu nekk loo xam ne dafa am process moo jaar xam nga dem ak si ak seen yi waaye man naa la koola a seen mobile mobile bi ma demee kii naa la koola mobile bi ok ok dan loolu garaaw non non problème ok jërëjëf ah thank you. All dama laa dimbale. yenn saa yi su ma mbiri jëkkër bi laa boon nga dimbale ma si. sa jëkkër. waaw say kër nga ne dimbale la dimbale setekat nag dama laa woon ne setekat da ko yóbbu yóbbu nekkul nit ku baax nit ku bon la. ngir yàlla dafa weesu. setekat si man dimbale ma. si yow. waaw. yow kër bi ma wax ak yow loo ma tontu woon. da ma gën ni xaj foog na doon solo si man. waye ñu ngi tànka ci suuf jaan ci suuf yaaka yaa dajee on naa la keroog bu ma dajee yow loma wax dama gida man dama dima tiit sax ne dima def lolu foon nga lu am solo ci man naka tey waaye nawoon foon man tay mo mo nekkon do metti fala ni ka dafa de ci yow comme nako ko waxee rek nawoon foon rek lewoon loolu té la dina té la bëgg gën yow ci yow ci man say man teel man ma bëgg dafa dina yow ci yow amul ben la waxon naa ko dana ko waat dafa des na sa loxo kon baax na dem noonu nga ko jàppee moom su ma demee dinaa ko xalaataat. xalaataat. ah. su fekkee ne ma day man dugg nañu sa kër te wala moom liggéey naka ah, ndax yaa ñëwaat wala la. mun na. mun ah. ma di ma bàyyi ma man ma teewul ndax mu yóbbu la. waaye gannaaw am baax. mu yóbbu la ma mën njëriñ. ah ok. dama tànga de dama tiitaatile de soona mënumaa nelaw li tàngaay ma ne xaaral ma géej time bi de time bi daaw time bi seedal na waaye léegi moom dafa tànga tànga daaw time bi si digg seedal lañu fekk waaye moom fekk si tàngaay bi nekk kenn mu xool jéema mënumaa fay ba nelaw